jërëjëf bokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax ci leen siyaare rawatina yu Dakar Buzz social sant yàlla nag booba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci li nga xam ne moom mooy social bi Dakar Buzz di def ngeen gis ni ñu ngi di woon séddale ceeb bi euh, actuellement ñu ngi ci li nga xam ne moom mooy euh, enveloppe bi nga xam ne moom la Dakar Buzz di joxe ànd ceeg waa yàlla euh, yàllaay kase nga xam ne ñoom kenn ku ne min na suñu diggante ak ñoom daaw defoon nañ ay enveloppe yu vingt cinq mille jox ko jaamu yàlla yi ren yàlla def liggéey bi macha allah yokku na def nañ ay enveloppe yu cinquante mille ñu war a tànn ay doomu aadama jox leen ko muy enveloppe bu fukki junne ñu war koo jox ñi nga xam ne nag ñi ngi woor ba ngoon amuñu lu nu ndogoo ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci ay jafe-jafe yu tar jabot jiital leen te mënuñu ko jooytu mun mënuñu ko wuti fen ñooñu lañ leen ci jiital ba pare jox leen ko di ànd ceeg Dakar Buzz Social li may wax rek Dakar Buzz Social ah, mi ngi ci liggéey liggéey boo xam ne ah, dañ koy gërëmee ki nga ne nag mooy borom kër gi le PDG Amadou waaye di gërëm képp koo xam ne rek membre nga nekk ci yàlla kase nekk fekk ci Amérique ñoom soxna Ndeye Bint ak ñi mu bokkal liggéey bi xama di laa ci àndal xama ñu dem ci biir xool jaamu yàlla yi ñan ñoo yelloo enveloppe bi ñu jox leen ko ñu dem jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz ba tey ni mu leen ko waxee rek ñu ngi ci ndimbal li nga xam ne moom la Dakar Buzz social di def ànd ceeg waa yàllay kase di ay doomu aadama yu baax yu nekk fee ci Amérique ñoom soxna Ndeye Binta Fall nekk ci ak ñi mu bokkal liggéey bi defoon nañu ko daaw ren ñu defaat ko euh, li may wax ndimbal rek fu ñu fi dem rek kin koy jox da ngay xam ne kii ku ko yelloo la te ku ku soxla ndimbal la ñu seet si itam sëriñ sëriñ mooy suñu malaat bi nga xam ne tey moom laa jëloon mën na war na mat ay at ci ginnaaw te nu amoon feebar ci loxo bi te nu amputé woon loxo bi mu ne ci ay jafe-jafe nag war a lekk war a naan war a liggéey war a dund war a yor yaayam te yoru ko yaayam tawat fat yi yëpp ma xam seen néew doole ak ñi nga xam ne ñoom la ñu euh, situation yi méttee ba tax ñu xalaat leen ci lii tey sëriñ nuyu naa la. Euh, Fadel ñu ngi lay fay. baal na wax baal nañ la wax yal nañu yàlla boole jégal te ñu teewoo ko ay déwéni déwén. naka yaram bi waaw ñu ngi sant yaa ngi nelaw Fadel. waaw léegi moom wax dëgg yàlla maa ngi nelaw. Mm-hmm. maa ngi nelaw bu baax. Mm-hmm. waaw maa ngi nelaw tey ñi nga xam ne ñoo ñoo jël teraanga ji jox la ko tey mii waa yàllaay kese nekk ci Amérique tey loo leen di ñaanal. waaw yàllaay kese moom seen ñaan am na tàmbaliwaay waaye amul yemuwaay ndax jaarat nañ feek man jaaraat nañ feek man kon buñ dellu si wee jaar feek man du ma ne guléet lu dul di leen sant sant gu am ab tàmbali te amut ab yemuwaay man nag dama mënul wax ci média moo tax samay wax dama koy gàttal rek en tout cas daal ngërëm leeg cant li yëpp yow Fadal teg naa ko sa loxo nga santal ma mbooleem doomu aadama yi nga xamante ne bii jàpp nañ ci sama ndimbal ak li ñuy dimbale doomu aadama yi yàlla na leen yàlla gën a dooleel yàlla na leen yàlla gën a jàppale yàlla na a sàmm sàmm leen sàmm seen njaboot. ci barke naka naka loxo bi. waaw loxo bi nag moom alhamdulilah. maa ngi ciy def sa activité. waaw maa ngi ciy def sama activité maa ngi ciy di ma yëngatu di dama ko ñëw waaye benn loxo xam nga ne moom. waaw man manam du bëri. yaay ma. Mhm, baal naa la yàlla. yàlla boole baal. amiin amiin amiin. naka coono sant yàlla rek sant yonent bi di la sant yow Fadel ak ñi ak mboolem koo àndal ak kuy koo xam ne mooy sa nit koo xam ne jàppale ma jàppale na la ci sama loxo doom bii ba mu ànd ak sagoom del delloo boppam ci yàlla maa ngi lay ñaanal yow Fadel yal na nga am lu kawe sa njorot lii ngay liggéey yal na yàgg ci sa loxo li yàlla na nga gudd fan yàlla bu kenn nettali sa ginnaaw yaa képp ku la jàppale ci kàttanu yàlla barke yonent bi salallaahu alayhi wa sallam wax sama xol dafa sedd dama feebar waaye sant naa la foog sant dale ba foog sant yem li la sëriñ wax rek sama cant mënu maa xam fan lay em ak yow ci fii ci duniyaa ak fanu jëm sant naa trop. lan ngay ñaanal waa yàllaay kese ñi nga xam ne. waa yàllaay kese. soxna Ndeye Binta Fall. waaw soxna Ndeye Binta Fall ak ku mu àndal ak ku mu làmbool ak képp koo xam ne yëkkati na xolom ak yéene jëf ko ci sama loxo doom bi mu jaarale ko ci yow ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla aar ci bépp musiba bépp ndong-ndong bépp balaa yal na leen yàlla aar te aar bépp doom aadama. lii nag enveloppe la boo xam ne ñi ngi pobale ci la nekk muy enveloppe bu fukk junni yow lañ ko jox ak sëriñ ndax bu joxe joxee sëriñ jox nan la. ndax xam na ni jaboot ngeen te doole ba te sëriñ moo war a wuti jox la te doole matewu ko fukki junni la leen di jox na yéen ñaar ngeen ñaanal dakaar Buzz te xam ne Dakar Buzz du leen bàyyi mukk lu mu am dina ko bokk ak ma génn fukki junni xamati ndax kon nga ñaan nga ñaanal waaw waaw waaw Dakar Buzz moom li may wax rek sama ñaan am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla aar sàmm leen sàmm seen njaboot saa yi ranoo baati nañ ci barke si yaxoon ah amiin waaw Dakar Buzz ak PDG bi EBT EBT ah, ah, maire bi ah, mënul wax loolu Amadou DC ak soxna bin ndey Binta ah. ak ak Fadel ak ñëpp ñu mu àndal képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci dakaaru Buzz maa ngi leen di ñaanal ci barke yonent bi maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan seen taxawaay egg yàgg te xam ne ñoom fàttewuñu ma te duñ ma fàtte benn yoon ndax buñ ma fàtte baa ñu fàtte sama doom ji lii ñuy def ci noonu dippi ba sëriñ feebaree ba tey teggiwuñu seen tàkk tànk chaque année kooru daaw nii kooru ren nii yal nañu ko yàgg di mën a def yàlla na yàlla yokk seeni xéewal yàlla yokk seen fal te yàlla bu ñu feebar yàlla bu ñu feebar la ci barke yonent jërëjëf Amady baa ngi nii muy enveloppe bu cinquante mille yàlla kase ak Dakar Buzz bëgg nañ ku xiif lekk waaye ku feebar faju nan dem beneen kër xool beneen jaamu yàlla boo xam ne doo leen bariwul ñu jàppale ko ci nan dem jërëjëf mbokk yi ba tey ni ma leen ko waxee rek euh, mooy ndimbali Dakar ba social di séddale ànd ceeg waa yàllaay kese mooy ñee nekk fee ci Amérique li ñuy wax rek ndimbali fu ñu fi dem rek jox ko rek da nga xam ne kii ku ko yelloo la ku ku ku soxla ndimbali la fii ma ñëw nag mooy euh, xale bi nga ku sunu jigéen bi nga xam ne ñëwoon nañ fi jamono yee te mu doon fóot te doom ji miir bi daan woon ci kawam ba mu génn àdduna nga xam ne bu fóotul du lekk te léeg-léeg mu xëy sax mu doy waar lool. moo tax ñu xalaat ci enveloppe yi tey. nuyu naa naa def. maa fi. sant rek. Eh, Dakar Buzz moo la seet si jàppale la fukk junni lan ngay ñaan la waa Dakar. moom naan sama xo kii di wolof leerul waaw. mais yaa ngi fóot. waaw. ay photo. tey photo. sama doom moo gaañu foofu looloo tax ma bàyyi footu ma kii bi wala looloo tax. Ah, sa doom bi gaañoo ba léegi fóotatoo. fóotuma billaay fóotu doon xale bi. Ousmane Ousmane Sané waaw waaw xale waaw. xale biir bi daan woon ci hmm. ma chaque jour soo ma xëyee quatre heures balaa ma dem foofu. ma pour ma utal ki xale pour ma kii bi ma utal kii bi fay bi luwaase sama kii bi sama borom bi amul doole ma ma jàppal moom ak lekk luwaase dafa seer dafa seer ak kii xale fu mu lekk ak ma jënd fu mu soxla ma jënd xale ak man loolu loolu de sax ma jug quatre di du matin balaa maa dem ma toog añ ma ma sama doom ma ñëw ma dem liggéey ma pare onze heures ma ñëw si sama ker chaque jour moom waa chaque jour noonu laa def soo tooko xaw ma fa ma am xaalis toog soo toogoo amaguma fu mu jàppale fu mu jàppale daal. d'accord léegi léegi lii cinquante mille la fukki junni xaaral ma jox ko nga xool. ñaanal ñu ñaanal ñu la ko jox. waaw merci ma yéeg ci kaw ma tekk yére yére tooy bi ma ma ma yendu si suuf ma dëkk yuuxu waatal kii sama kii sama doom moo moo dee ba pare ma daw ma daw si kaw sel bi xam si kaw troisième la sax daw ci ma daanu ñaari yoon. ma raam ma raam ma ci ma gis sama doom. Ousmane mu tëdd. mu tëdd dafa dafa dee. dafa dee ba pare. léegi ñi la jox fukki junni ñaanal leen leen di waa yàlla yàlla fay yàlla yàlla. ayta moom li tax ñu ñëwant ko mooy eh, kaab dafa doy waar mais eh, ndimbal li Dakar ba ci génne xalaat ko ci tey lan nga waa Dakar. xanaa di leen sant waa Dakar Buzz moom. ci kaw ci kanam li ma ne la faadal yow moom jaratul ngay ngay ngay julli di jàpp yow yow doomu aadama yi dañ lay ñaanal te du benn kaa bi kase saa bu ma amee cas bu ma la woy ne la faadal ñaa kaay dimbali doomu aadama bi nga ñëw ñëw dimbali ko su ma sañoon nag nit ñi ñëw jàppale kii bu baax a baax a baax ba wutal ko fu mu dëkk bëgg naa trop loolu fu mu dëkk nu ko nu ko waay mën a jàppale defalul kenn boppam la defal ndax doomu aadama macha allah te jom rek la am 4 heures du man ak moom fóot moo taxoon ñu xamante sama nit la daf ma daan fóotal sama xarit la ma jël ko jàpp ko jàpp ko te yàlla tax ndax ni mu mel nii mais nag dafa metti trop lépp lu waaye am na ko dimbali te yàlla tax ku def rek yàlla tax ngay def Fadal di la wax jërëjëf kon. waaw yàllaay kese loolee di ñaanal. Ah, ñu tuddee dama leen di ñaanal rek parce que képp ku jël sa dërëm def ko ci doomu aadama rek yàlla na la suñu borom fay parce que lii moo ëpp lépp dimbali doomu aadama moo ëpp lépp. parce que di jox di joxe sa alal ci leneen balaa caa nga jox ko ñi nga xam dañ ko soxla moo ëpp lépp loo gis ci àdduna di leen ñaanal na ñoom ñoo xam li ñu bëgg yàlla na leen ko yàlla suñu borom defal yàlla yokkal leen xéewal gi may sutura saawaan baawaan yàlla gën leen ko defal ci barke yonent bi amin jërëjëf xamadi waa yàlla kese ñu ngi leen di sant leen gërëm moom moom la doomam gaañu woon parce que moo doon fóot doom ji miir bi daante ko mu génn àdduna la indiwaat tey di ko fàttalikuwaat moo tax nee na ca la jógee sax daanaka gëj a dañuy dem ci beneen kër ci beneen jaamu yàlla bu ci wërsëgam nekk ñu jox ko ci jërë ngeen jëf Dakar Buzz ak yàllaay kese yàlla na ñëpp am jaam jërë bokk internet yu Dakar Buzz ba tey ni mu leen ko waxee rek ñu ngi ci ndimbal li nga xam ne moom la ñuy wër di ko séddale boobu ba léegi dakaar Buzz social am ànd ceeg waa yàllaay kase mooy sunu jigéen yi nekk fee ci Amérique ma fekk fi benn yaay booy boo xam ne day wor ba ngoon doom lu mu ndogoo day woo ba ngoon doom lu mu lekk doom lu mu naan ne ci ay jafe-jafe yu metti teew mu gëm yàlla nag eh, di bale jumaa ji di ko raxas di nit ku yàlla baaxal tey ñu war koo jox ci xéwal yi yaa booy nuyu naa la. waaw kay fay naa la suma doom. baa yaa ngi ci jàmm alhamdulilah alhamdulilah. naka yi tey maa ngi ci jàmm alhamdulilah. nga ne boobaa léegi amaloon na ko. déedéet amul amul de maa yàlla di leen yaakaar. waaw ngeen wut def man dimbal te yàlla tax. kon da ba ngoon doom loon na ko. Oh, du ma am de. Hmm. waaw. ndeysaan naka sa ngi tane. waaw ngi tane mi ngi tane léegi ngi tane mi ngi tane mi ngi tane. feebar na feebar métti na waaye alhamdulilah. Hmm. waaw yéen laa yaakaar. gannaaw yàlla yéen laa yaakaar. maa ngi wuti ndimbal ki ma war a jàppale. Hmm. waaw. doon dem ni dama doon wuti li li may ndogo nii. waaw. léegi Dakar ba dina la jàppale fukki junni. incha allah mu jox la ko nga ñaanal ñu ko jox. incha allah incha allah yàlla mi am jàmm yàlla seen jàmm yàgg. yàlla dolli sutura ak teranga. wéet ak wéel jàmm yàlla bu nangu. li ngay ñëw seet si man yàlla yàlla fay mosen fay yàlla mi fay yàlla na yàlla fay yàlla yokk jàmm ak xéwal bak salaat annabi yàlla na ngay yàgg di ko jox salaat annabi ñaanal waa yàlla kese ñu ko jox ñu ngi nekk ba Amérique waaw ñi nekk Amérique yàlla na yàlla fay leen sama olof leeru de waaye ma ngi ñaan yàlla yàlla seen jàmm yàgg yàlla dooleel leen barke salaat annabi alhamdulilah kontaan na sama xol sedd na jërëjëf dama nga jox njaboot gu jënd alhamdulilah incha allah jërëjëf jërëjëf incha allah salaamaaleykum mer Nogaye noo def naka yi tey déwénati baal maax baal naa la baal maax koy déwén waaw lépp jàmm rek da ngay jàpp ndeysaan waaw xam nga kii li tax ñu koy jubal si mooy doy suñu wéjur moom tam néew doole lool yor benn doomam bu góor bu jàng dem ba université yàlla def ci moom ndog-ndog mu tawat tawat joo xam ne doy na waar te moom moo nekkoon kennu mbaaram daanaka gannaaw yàlla ci moom la yaakaaroon moo bu ndimbali ñëwee rek dañ koy bàyyi xel ba gi nga dëkkuwaay bi ni mel nii ci biir ndox mi la dëkk moo xam ne doy na waar daal pour ñu xëy sax teg ci c'est tout un problème pour ñu xëy lekk c'est tout un problème. mais sant yàlla ndax yàlla mooy tege te ñu ngi ñaan yàlla teg ko ba tax na ki nga nii muy ko gëm yàlla fekk nañ ko nii muy euh, waajal waxtu wi waaye sant yàlla ndax yàlla kum na tafay du la liggéeyloo di gërëmaat ak fa Dakar Buzz social ci taxaw bi mu taxaw jaamu yàlla yi di gërëm équipe bu Dakar Buzz yëpp ndax saasu su ne ñi ngi xëpp seen bët teg ko ci ñu néew doole ngir jéem leen a jàppale rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa yàllay kase ñoom soxna Ndeye Binta Fall ak ñi mu bokkal bi ñu liggéey liggéey bu am solo kon leen bind seen jëf yàlla nangu na ko ndax kii ñu koy jox jaamu yatu yàlla la te ku néew doole la ku soxla ndimbal la na ko yaa ngi ci njàppali ñaanal enveloppe bu fukki junni la Dakar Buzz ma la ko jàppale ànd ceeg ñi nga xam ne ñoom ñoo yàllaay kese ñaan gi la nu soxla wax sànq rek jaboot nga sa doole bariwut sa doom ji la yàlla booleel ñëwul nii baax na rek dama la ko jox te sa doom la yàlla booleel nga am ci moom yaakaar yàlla ñëw ak dogalam nga gëm ko lool waaye sant yàlla waaye lii fukki junni la boo xam ne Dakar ba social ñoo ko jàppale ànd ceeg ay jaamu yàlla yu nekk ci Amérique di def te yàlla tax naka koor gi. ci kawam rek bàllee ñu àq. ñu yàlla boole ji jafe-jafe na lool waaye sant yàlla rek wax yàlla moom lu la teg rek nangu ko. mënoon naa gën a metti sant yàlla rek ndax soo xoolee ñi nga xam ne nii fañ toog mënuñu faa jóg nga sant yàlla nga mën a sol soo daal di dem ko ñëw léegi nii laa demoon fi nana si dëkk bi fii eh, xaw sax lu may wax. boo demoon bu lan la woon dem la dem lan la mm, seeti woon sama benn bàjjan foofu rek. Mm-hmm. waaw. pour ma ko gëj gis rek. sant yàlla waaw. ma jox la fukki junni. yàlla nag ngeen bëgg yàlla na ko yàlla yeggal ak yéen. lépp nag yow lépp nag yow lépp la waaw da ngay yàlla lu tax ba. ma ne ko bàjjen damaa la gëj rek seet si la. këram a ngi fii ginnaaw raay wante euh, seen kër dañ koy liggéey pareegul ñu dem booy fa fa fee sang mbaaw sang mbaaw laa demal maa ngi dangaa maa ñëw rek tëdd nii rek nelaw. loo ñaanal Dakar Buzz. gudd fa nag bi rek yokk yëg yokk ba yëg ko rek ca kaw. ana sa doom ji. sama doom ji mi ngi fi rek. mu def mbaa mi ngi tane. ah sant yàlla waaye dëkk fi mu ne nii toxu na de. toxu na. dafa jékki-jékki rek dem. waaw na dafa jékki dëkk fii mënut a dëkk ñun. léegi nag dem na mu ngi toxu fii boori fii nanti eh, rond-point Dominique foofu la nekk. jëlal fukki junni yi nanguwul nanguwul nanguwul jege nanguwul jege papaam wax dëgg yàlla. jëlal fukki junni te ñaan yàlla du la. leen di ñaanal yàlla fu ngeen mën a toll daal ak lu ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla leen ko yàlla may may leen gudd fan may leen wër may leen xeewal yàlla yokk leen ba ca kaw nag. lu kawe seen jort borom télé beet yal na ko yàlla yokk gis naa ko sa ngénte jërëjëf mu may ma xaalis bu bëri yii la ma romb jërëjëf nga ne ko këram a ngi nii ah. waaw mu jox ma xaalis bu baax na ñaanal maa koy ñaanal yàlla yàlla may ñaanalal waa Amérique ñu la dimbalee xaalis bi ñaanal leen waa Amérique itam maa leen di ñaanal yàlla fu ñu fu ñu fu ñu bëgg a yegg yal na leen fi yàlla yeggale barke Seydina Mohamed barke Serigne Touba barke Alaaji Fàllu Mbàkke borom na am mu am yéen a xam li ngeen bëgg yéen ñëpp laay ñaanal mboolem jullit. jërëjëf Xamadi kon toogaay amul dañ ko jël jëlal mu rees ak jàmm nga daw jox njaboot gi ak xale dawal jërëjëf. jërëjëf Xamadi ba tey li ma leen wax rek ñu ngi ciy séddale bi nga xam ne moom mooy enveloppe bi ànd ceeg waa yàllaay kese ak Dakar Buzz social ah, ñu seet si ko moom muy jaboot néew doole lool bu xëyee pour mu lekk fu ne lay tuñ tuñee kër jàpp ko ñu bëgg koo jàppale ci malade ci li nga xam ne moom la ko Dakar Buzz jàppale ànd ceeg waa yàlla kese muy ñoom soxna Ndeye Binta Fall nuyu naa la. fay naa la fay naa la fay naa leen waa Dakar Buzz yëpp yéen ñëpp a ngi ci jàmm ñoo ngi ci kawam ñoo ngi ci kawam di sant yàlla bu baax gi ñoo ci kawam koor gi kay yëguñu ko ren ndax li fi indi woon keroog ba jeexagul maa leen di kontaanee neel ñoom bu ndaw maa ngi leen di ñaanal wér ak gudd fan yàlla may leen yéen ñëpp gudd fan ñaanal waa Dakar Buzz waaw man kay dama leen man kay chaque jour maa ngi leen di ñaanal te dam rek ngeen di am amin amin lii nag waa ay doomu aadama yi ñoo nekk ci Amérique tudd seen bopp yàlla kese ñoo la ko jëf muy muy waaw comme ni ma defee woon bu ndaw ñoom ñaanal leen ñaanal la yow ñaanale ko rajo bi yàlla na ngeen yokk ba yëg ko di ko def ay ati ati at ngeen dema dema dem ba yéen seen njaboot remplacer leen. di ko def coono jafe ah, ñoo ngi ci kawam rek ñoo ngi ci kawam rek. ñoo ngi ci kawam rek damaa génnoon damaa demoon caaro yi. di jënd ji rek. waaw dama demoon caaro yi di am lu ma demoon jënd ji noonu rek caaro yi léegi nag après sama téléphone bu jëlee rek bu ma bëggee jël mu coupé bu ma bëggee jël ba dernier bi ma yegsee fii rek la sonné ma jël rek sama doom bi woo ma ni ma yéen a ngi fi sànq ba tey di jàpp. waaw ma jox la li la jàppale. fukki junne looy ñaanal Dakar Buzz ak ñi mu àndal liggéey ak ñi ci liggéey bi yal na ngeen yokk ba yëg ko lu ngeen man ren bu déwénee yal na ngeen man lu ko raw ku la yow dama lay fay dama lay ñaanal rek dama lay ñaanal di la gërëm ndax lépp yow a saay boo xëyee suba gaare sa oto fii bu ma xëyee romb la nga làmb sa poos yëkkati jox ma sa soxna heure bu ma génnee bu ma yëkkati bu ma rombee rek mu ne bàjjan am yëkkati jox ma man daal aw ma seen fay dama leen di ñaanal di la ñaanal waa dakaar Buzz ñi ngay liggéeyal yal na yàlla yàggal sa taxawaay ak ñoom dëgëral ko wéral seen i cër te rajo bi yal na yokk ba yëg ko lépp lu ngeen man ren bu déwénee yal na ngeen man lu ko raw te américain yooyu yal na leen yàlla bàyyeeg ñoom ñu ànd ak wér ak wérle jërëjëf xamadi li may wax rek mooy ndimbali ku ko jox rek day fekk mu nekk ku ko yelloo ku ko yittewoo jaboot la néew na doole lool ba li wax bu nu xëyee pour nu lekk pour nu naan problème lay nekk Dakar ba jàppale na ko fukk junni ànd ceeg waa yàllaay kase nan dem xel ba nañ jaamu yàlla. xam nga ba tey li may wax rek ñu ngi ci social bi Dakar ba di séddale muy enveloppe bi ñuy seet ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu leen koy jàppale ba ba léegi ci la nekk suba ba léegi tey moom it muy jaboot néew doole yor malaat boo xam ne tey jaaxal na ko dakaar ba su seet seeti woon na ko. waaye sant yàlla ndax yàlla moom mooy tege te ñu ngi ñaan yàlla di teg waaye mu jaboot niw doole lool lool lool bu xëyee pour mu lekk sax wax naa ko problème lay nekk fu fi dem rek dangay xam ni kii ku soxla ndimbal la ndax bu xëyee li muy li muy koy jaaxal mooy lu mu ndogoo Dakar ba si la tey noo def nuyu naa la. maa ngi def Mbàkke. jërëjëf ci jàmm jàmm rek ñaŋ. naka yaram maa ngi tane. ana sa malade bi sa malade baa nga fay tëdd. lii Dakar bés ma la ko jàppale ma fi ko junni ma jox la ko nga xool parce que wax day ànd ak seede mu leer ndax ki Dakar Buzz ndimbal lu muy def day bëgg mu leer naa ni jëlal 10 cent 20 30 40 50 ñi la ko jàppalee nag ay nit ñu baax la ñu nekk ba Amérique ñaanal leen. yàlla na leen yàlla jàppale li ngeen di def nit ñi gis nañ ko kontaan nañ ci loolu te taxaw nga ñu dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla amuñ seen fay yàlla na yokk yàlla na yokk. jërëjëf xamadi toogaay amul taxawaay amul dañuy demaat ci beneen jaamu yàlla rek. jox ko li nga xam ne wërsëgam la kun ko jox rek ku ko yelloo la kun ko jox rek saa bu xëy li koy jaaxal mooy lu mu ndogoo ak lu mu jox jabootam ñooñ lañuy ñuy di leen ko jox yàllaay kase jërë ngeen jëf soxna Ndeye Binta xam nga dañu dem beneen kër. jërëjëf a def lan lañ rek ñu ci ndimbal li nga xam ne moom la Dakar ba social di séddale muy aide yi waaye fi fi ñëw nag tey dafa nekk cas boo xam tey doy na waar xam naa dina metti pour ñu tourner ko ak moment yi ni mu xatee si ñun mais dañ ko ci sédd li nga xam ne moom la xéwal yi Dakar ba di joxe ànd ceeg waa yàllay kase di suñu jigéen yi nekk ci Amérique moom nag gisee ko nii jarul sax ñuy wax li ko dal ak fi mu toll ak douleur yi muy yëg métti na méttiwaay boo xam ne yaakaar naa ne boo ne jàkk rek li naan c'est l'image qui parle ba tax na Dakar ba social euh, dina ko jàppale li nga xam ne moom lay defal ñu soxla noo tudd. man wuuri laa tudd. lii ko dal kañ la. ah lii nag xaw naa yàgg nag aw nañ fi nekk nii de mën na mat weer de bu tegalut. jafe-jafe yi nan lay dundee ak lii. deux mois ah sonn na torop sonn na torop affaire bi daal dafa téye gémmiñ gi yëpp mu nekk nii dafa lang munta lekk munta naan yëpp si raakool bi lay doon sonn na torop fu ñu ko nettu daal weesu na ko foofu ñun daw nañ ba sonn mbokk yi dimbale nañ ànd jàmm yi dimbale nañ waaye ah ñu ngi ñaan dimbal daal ñu ngi ñaan dimbal. bu manta ni waay ba lu mu mën a am daal ñu ngi ñaan dimbal dimbali ñu rek te yàlla tax dimbali ko yàlla may ko tane mu dellu si njabootam ma ci jàmm loolu rek lañ soxla. métti na lool foo ko takk weesu muy jafe loo xam ne daal sérieusement boo ko tiimee xam ne métti na euh, métti na fa coono waaye comme danoo fekk ci yoon fekk lu ñuy séddale aide yi nga xam ne moom la Dakar ba social di séddale ànd ceeg bonne volonté yi muy waa yàlla kese Dakar ba dina ko jàppale fukki junni ñu jox ko fukki junni yi. mu mën cee jëfandikoo jënd ci garab ba fii ak ginnaaw suba tombeek liggéey bi wax fiix ma xaw a fiix tuuti daw ñëw defal ko vidéo spéciale lan ngeen ñaanal ñu nu jàppale ba tax ñu mën a def li ah man la ñaanal xéewal ñaan leen gudd fan ak wér am ngeen jaaraama seen taxawaay rafet na. ngay ñaanal Dakar Buzz social. ah maa leen ay ñaanal yokk ba yëg ko maa leen ay ñaanal gudd fan a wér ak wérle li ñuy yóotu yàlla na leen ko yàlla may lépp lu ñuy mbébét di ko def ndi yàlla tax yàlla na leen ko yàlla dimbale yàlla may leen tiyaaba bi may leen gudd fan ak wér ak wérle si barke Seydina Dakar Buzz jox na la fukki junni pour nga mën koo jëfandikoo ñaan yi com solo mooy ñaan xol. ñaanal lu ñaanu xol te ñaanal ñin ko jox muy waa yàlla kese nekk ci Amérique di suñuy partenaire yàlla di ngi ñaan yàlla may la wér yàlla sàmm la yàlla dëgëral la yàlla sutural la taxaw la ci barke bi te di nga jóg incha allahu massa dégg nga massa massa massa massa jërëjëf bokk internet yu Dakar Buzz ba tey ni ma leen ko waxee rek ñu ngi ci li nga xam ne mooy ndimbal li Dakar Buzz social di séddale ànd ceeg waa yàllaay kese waa Amérique ñoom soxna Ndeye Binta Fall ak ñi mu bokkoon liggéey bi ñu ñëwaat ci beneen kër suñu beneen wéyjur boo xam tam ci euh, ñi ñaan daal yàlla guddal fanam te may ko yaay booy ki nga nag fi mu tombee sax fekk mu yor kuréel tam yaay booy nuyu naa la. maa bu baax a baax. maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm bu baax. Dakar ba social ñëw ànd ak suñuy partenaires yu nekk ci Amérique tuddee seen bopp yàllaay kase di def ngir yàlla jàppale la enveloppe fukki junni loo di ñaanal. yal na yàlla yàlla sàmm leen yàlla aar leen yàlla yokk leen ci barke yonent bi lu ngeen man ren yàlla ngeen ko man di woon yàlla bu kenn seddale dara seen ginnaaw ci barke yàlla na yàlla yokk ba ngeen yëg na yokk ngeen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf yàlla ne ko teew ay diwan yu bëree bare bare tarafati teew ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki kay yéen ñi koy joxe nag yàlla na ngeen ko gën a man yàlla na ngeen gën a man joxe bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal leen ñu ngi tuddee seen bopp yàllaay kase yàllaay kafe kase ah macha allah yàlla rek dafa doy kéemaan waxtuma la yàllaay kese nag yàlla na leen si tur borom bi wuyu yalla na leen turu borom bi wuyu. loo ñaanal dakaar Buzz social. Dakar Buzz boobu dama leen di ñaanal gudd fan ak wér ak wérle ak yokk ba yëkk rek nag yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla yokk leen ba ngeen gën a am ay télé télé télé télé télé télé nag laa ubbi ay télé télé ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla sàmm leen yàlla mi nga xam ne moom ngeen tudde seen bopp yal na leen aaral boppam yal na leen aaral boppam. amiin jërëjëf mbokk yi daanaka nag benn ci des. benn ci des ta dafa ñëw tardivement damay dem xolaat beneen jaamu yàlla ma jox ko parce que Dakar Buzz li may wax rek lantinoor lu téye diw lu ko di jox mu jox ko yàlla kese yàlla mi tax ngeen di jëf gis na ko yàlla yàlla fay leen soxna Ndeye Binta yow ak ñi nga bokkal liggéey bi yëpp ci Amérique ñi ngi ñaan yàlla taxaw leen yàlla sàmm leen Dakar Buzz ca kaw ca kanam bëgg na ku feebar faj waaye ku xiif mu jox la nga lekk xam na nañ dem xool beneen jaamu yàlla Abdourahmane siyaar naa la delloo maa ngi ci jàmm jalis maa ngi ci. yaa ngi tane maa ngi tane tuuti rek bi mu doon woo après naa ma da nga fattoot ba ngeen yóbbu eh, laa génn dalal jàmm. Mhm. soxla yi bari lool. Mhm. wallaay sonn naa foofu lool. Mhm. wallaay léegi lii nag waa dakaar Buzz ñoo la ko jàppale ànd eh. ceeg ay jaamu yàlla yi nekk ci Amérique tuddee seen bopp yàllaay kese. Uh-huh. ñoo la jàppale lii. Uh-huh. na Ndeye Binta lii moo mujjee ñëw moo nekk vingt cinq mille yoo ngi ko jox ñëw na tardivement parce que bokkul woon ci enveloppe bi cinquante mille ñu doon séddale. séddale neen huit enveloppe bi enveloppe bu nekk def cinquante mille lii mooy lii dernier mujjee ñëw ñu jël ko ba koo joxaat jaamu yàlla moom nag jëli si la moo tax mu tombeek ñu koo jox vingt cinq mille waaye liggéey bi yàlla ko yàlla nangu yàlla sàmm leen te yàlla dëgëral leen jox neen huit enveloppe enveloppe bu ci nekk cinquante mille léegi nag lii mooy dernier béef bi mujjee dugg muy vingt cinq mille moom la nga koy jox muy malaatu jëli si jërëjëf ñaanalal ñun ko jox. yal na leen yàlla fay. maa ñaan yàlla yal na leen yàlla aar aar seen njaboot. yal na leen yàlla sàmm sàmm seen njaboot. yal na yàlla yokkal seen wér yaram. yàlla bul leen feebar. yal na leen yàlla yokkal seen i xéewal. looy ñaanal Dakar Buzz. Dakar Buzz tamit eh, vraiment awma seen fay. taxaw ngeen ma jàppale ngeen ma dimbale ngeen ma. boo gisee nit ñi di ma xam tey yéen yee tax. wallaahi yéen yee Eh, maa ngi leen di ñaanal eh, yàlla yàlla gana développé seen site bi ba mu nekk ay télé télé télé yu bëri monde entier bi yëpp xam leen. ñaanal ADG bi Amadou Sy ñaanal. ADG Amadou Sy maa ngi leen ña eh, maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla sàmm sàmm say njaboot yalla na la yàlla aar aar say njaboot yal na la yàlla yokkal say wërsëg vraiment kontaan yaa ngi def jërëjëf na. maa ngi def jàll ana raakol bi. gis nga nii fi nga ko nii. massa yàlla yàlla may la wér. willaay willaay coono coono bu fii laay wàcce sama kàddu ci micro bi Fadal la cadre bu xamadi laa ci àndaloon tey suba ba léegi ñu ngi woon ci woon ànd ceeg waa yàlla kase ak waa dakaar ba Social doon séddale enveloppe bi liggéey bi yemb na yàlla yàlla fay leen gën gi fay taxaw leen te sàmm leen jërë ngeen jëf.